ñu tàmbali ak euh, anniversaire Mamor logistique service logistique bu euh, télévision Futur Média la nekk Mamor moo jëli xale yi fajar gi moo tax lu ne lay gis ay kanam yu mokk ak ay mauvaise humeur rek lépp dafa dafa dafa dafa jàpp ñaam waaw mais ku nekk ak yéen mënut a jàpp ñaam bi ñaam moo moo yey moo yey moo yey ci bi yéen yéen jël jëli leen fajar rek mais bu ñëwee dafay ba pare ngeen waaw mais da ngeen ko sonal moo tax naan la carte noire la mais nit ku baax la c'est un amour c'est un amour amul benn problème. happy birthday maman. joyeux anniversaire maman. day jàpp ci yow leen. dundal dundal dundal. papa da ngaa xulóog maman. déedéet. d'accord mais amoo la ci wax. ok ok d'accord da ngaa seq. waa dëgg la seq àndut ak wax de seqkat bi da ngaa seq nii. faaba kon seq nga. donc lumpal la nga ko seq. da ko lumpal ok d' accord euh, lump àndul ak wax. donc joyeux anniversaire à euh, Mamor bu télévision Futur Média sama beneen xarit Alfi suñu xarit la Axel Joël Ba Axel tey anniversaire oui il nous regarde depuis Libreville moom ak euh, jabaram Farid. madame Ba joyeux anniversaire Axel. Oh, nit ku baax man li mu ko xam yàggul avant muy dem Libreville mais c'est fii Sénégal donc Axel on lui souhaite. bon anniversaire euh, birthday joyeux anniversaire à Bintou Ndaw de la part de Sandra Bintou Ndaw tey la anniversaire am euh, joyeux anniversaire donc de la part de Sandra. Eh. joyeux an <laughs> quoi. Eh, <laughs> à part Bintou Ndaw dañ ko maquillé xale yi dañu dañu doon quoi dañ ko maquillé ba defaral ko rouge à lèvres hmm. donc euh, euh, Fatou Bintou Ndaw bon anniversaire joyeux anniversaire à notre frère notre unique Seydina Mandione Nia yàlla na ngay trésor de la part de papa maman et de ses sœurs joyeux anniversaire à Maïmouna John euh, de la part de maman euh, papa et de son petit frère Babacar et sa petite sœur Aïda joyeux anniversaire à Ogé Ogui OG ou j'arrive pas à lire ça Paul euh, tous mes vœux les meilleurs voilà joyeux anniversaire à Djeila Sow de la part de Moustapha Ba SVA donc Moustapha bu SVA mooy souhaiter joyeux anniversaire à Djeila Sow joyeux anniversaire à notre amie la plus pata des amies Bijou Gueye elle s'appelle eh. <laughs> waneel leen ma photo boo xamante ni taille fine la ci nekk s'il vous plaît parce que sinon si on montre une photo boo xamante ni daf ci pata ah, on risque d'avoir des problèmes voilà c'est elle Bijou pata suñu xarit waaw baax la nit ku baax moom depuis temps wu euh, euh, temps wu vache maigre voilà vache maigre mm. depuis Paris ba léegi changé wul toujours adorable fu mu la fekk bëgg la reetaan loo baax bay bëgg a dee euh, toujours serviable vraiment reste comme tu es yaayu bébé Aïcha chérie Mara on t'aime très très fort dundal dundal dundal donc moom mooy euh, moom mooy doomu Mbaye Gueye bu ENC. Bijou Gueye ñu ngi koy souhaiter euh, <laughs> un bon anniversaire. magnifique très très très très adorable. Euh, ma ngay nampal xam naa di seetaan a même temps bah oui hein donc Bijou bon anniversaire mu donc anniversaire yi jeex na ñi ci des xam naa.